rayante ak góor ñi tey nag ma am mbégte mu rëy dalal sama ñaari turandoo yoo xam ni euh, macha allah ku leen xamul it dégg nga leen ñuy yëngu nag si domaine boo xam ni raar na tey ñu gis ci ay jigéen donte am na mais fi ñu yegg si nii euh, macha allah euh, raar na nga gis jigéen ñu fa ñu fa yegg si yoon wi nag ñàkkul ne guddoon na lëndëm na dinañu ci ñëwaat mooy démb ak tey faatu Camara ak faatu Sylla ma am mbégte lool dalal leen commencé ci Fatou Camara ñu ngi lay nuyu. waaw faatu maa ngi lay fay di nuyu mbokk auditeurs ak auditrices yi déglu réew mi FM yëpp di leen nuyu bu baax a baax waaw. Fatou Sylla yow moom macha allah <laughs> moo yore xorom si euh, animation bi euh, euh, xumb lool ñu ngi lay nuyu am mbégte bu baax vraiment sincèrement contentement bu rëy laa am si dalal leen parce que yàgg naa leen suivre te aussi ku leen naw laa certainement comme comme yeneen jigéen. waaw ah, bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu waajur yi. di nuyu auditeur waa mi FM di leen wax ne ñi ngi bëgg waxtaan waxtaan boo xam ne au moins dina am njëriñ ci suñu ñees wala suñu ay nëwe yi nga xamante ne ñu ngi ci yoon bi. Mm-hmm. jërëjëf alors ni ma ko waxee Fatou yéen a ngi si domaine boo xam ne raar na tey ñu gis ci euh, ay jigéen euh, am na mais fi ngeen yegg si nii euh, tey yombul certainement ñu ñu gis ñu fa ñu fa nekk ma des ak yow Fatou Sylla lan moo leen dugal ci mécanique yow. waaw mécanique nag dafa doon loo xamante ne. ñun bu ñu bàyyee xel rek dinañ xam ne suñu waajur yi personnellement sama papa euh, dafa njaboote ay jigéen amul ay doom yu góor yu bari donc euh, mën naa ne sax moom moo xaw a modifié tout le temps ma doon ànd ak moom ci activité yu mu doon def yoo xam ne góor moo ko war def à la place mais ma nekk ci jàng cycle def def sixième ba terminal et que ma doon nekkoon de la fosse doon def euh, Euh, doon def série F3 kii di F3 di technique donc bi ma ci demee di ci dem di ci dem ba sama benn professeur ne ma pourquoi pas nga viré dem def mécanique automobile parce que gis naa la ci fekk na nag mu doon lu ma bëgg fekk na gënal na ma à la place ay euh, euh, secrétaire wala wala donc ci man daal xam naa ne lu nekkoon ci man la ma dem jàng poussé ma ci mais amul kenn ku ko def sa entourage non. non personnellement sam papa sam papa ci mbirum oto la doon liggéeyee. mais nag aw ma kenn koo xamante du loo xam dama ko doon. Hmm. loo xamante ne daal man maa ko def sax ci famille bi. c'était une première. Hmm. Euh, yow Fatou lu la dugal ci mécanique. waaw comme ni ko sama turandoo waxee rek ñun ñoo bokk par presque palmarès mais man aussi sama papa docteur la woon. te xam naa comme moom da doon faj nit ñi. yàlla viré mooy faj oto yi ndax nekk ñiy faj nit ñi ñooy faj oto yi rek. c'est pareil waaw. d'accord amul kenn ku def mécanique genre. déedéet sama entourage. Euh, dafa dafa nekk métier boo xam depuis ma nekkee xale rek dama ko bëggoon. xam nga nit parfois ngay fooye loo xam ne boo màggee rek pour nga dem ci facile c'est facile. waaw loolu la depuis ma nekkee xale lu ma bëggoon la nag. loolu moo tax bi ma gisee bi ma jàngee ba gis ni am na école formation bu koy def en 95 lañ ci dugg ci laa dem def IAFP Thomas Sankara fekkante fa ak sama seex bi ñu def formation bi trois ans bi ñu génnee la ñu dem ci benn garage boo xam ne dañu spécialisé wu ci Mercedes ñu def fa 7 ans de pratique. en juin mille cinq ñu créé suñu propre garage tuddee ko suñu bopp def faatu faatu Mercedes. mais ñu bëri dañuy dégg faatu faatu Mercedes. pour ñoom Mercedes kese la ñuy liggéey dañ ci spécialisé wu mais marque yëpp la ñuy liggéey waaw moom xaw nga tontu ci laaj bi ma doon waaj a laaj mooy fan ngeen xamante ak ak peut seen relation lan moo ko euh, moom may nañu ci tuuti. Mhm. Euh, yéen ñaar lan moo tax ngeen ànd bopp ba tey lan moo dëgëral. waaw man ak sama sœur jumelle nag c'est une longue histoire boo xamante ne souhaité ma muy man muy moom ñu ci euh, ñu ciy xuus. ndax li tax li ñuy wax rek cat dafa sew. te te te suñu histoire dafa dafa dafa dafa mbiru yàlla la. au fait souvent dama koy wax ñun seexu maam yàlla li duñu bokk ñu ndey ak baay mais li ñuy dund xam nañ ne dañu mel ni ay seex. dañu koy gis dañ koy yëg dañ koy dañ koy sentir. donc li tax bugguma ci xuus damay bëgg rek wax naa ko récemment ci benn plateau nañ ñu may fii peut te 60 ans. xam nga boo demee ba am 60 ans nee nañu ci ci ci ci alxuraan. kenn du la mënala ci dara mm. bu ko defee nag ñu wax suñu palmarès mm. wax suñu diggante voilà mm. donc daal di ñaan rek képp koo xam ne mu ngi déglu mu ñaanal ñaari faatu yi mm-hmm. yàlla gën leen a boole yàlla dàq seytaane parce que cat dafa sew mm-hmm. mais jàng moo moo moo lal diggante bi da ngeen fekkante rek fi ngeen doon jàngee si si si naa ne suñu à peu bu ñu demee ba xamaliku li ñu li ñu am ci suñu àdduna yépp ñun ñaar ñoo ko ñoo ko amandoo bokk fi ñu jàngee théorie bokk fi ñu defee pratique pratique ñëw ubbi suñu propre garage et depuis ñu ngi ci. yàlla moo leen boole daal. ci ci gàttal yàlla moo ñu boole moo tax ma ne seexu maam yàlla bi mm-hmm. te yàlla xam nga lu mu teg loxoom euh, mën na jéng mais du laal suuf. Mm-hmm. ala kulli alin donc euh, man daal damay jàpp ne rek suñu borom ñun seexu maam yàlla yi lañ. Euh, Fatou seen début yaa ngi siy wax sànq euh, da ngeen dem defi euh, pratique pendant sept ans wu ci ci Mercedes et tout alors lan moo leen xiir ci ci Mercedes ba tax ngeen dem spécialisé wu ci ba peut-être ñenn di jàpp ne loolu rek ngeen di def. waaw garage bi ñu nekkoon mu vieux Cheikh Ndiare ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare aljanna fi mu nekkoon fi ñu nekkoon moom moom spécialité Mercedes la woon comme ñun bi ñu génnee école rek fa lañ dem di fa def pratique. loolu moo tax moom ñu ñu ñu nekkoon ci marque boobu mais marque yëpp la ñuy liggéey ndax mécanique amul lii laa mën lële laa mën dañu spécialisé wu ci Mercedes mais yeneen marque yi yëpp boo ñëwee fii di nga fi gis marque yëpp la ñuy liggéey lépp la ñuy liggéey waaw. Mhm. alors seen ay début nga nga commencé ci woon ñëw sànq naka la demee bi ngeen di jóge foofu bay nee tey da ngeen di samp seen yëfu bopp xàll seen yoon. waaw début bu metti lañu lu fu méttee métti la ñu jaar parce que xam nga 95 boo déggee ma koy wax boo ko dindee si suñuy âge boobu ay xale lañ amoo yenn maturité yi génn école ñëw si garage boo xam ni ay góor rekk a fa nekk yow nga nekk fa jigéen euh, boo génnee bët bi ñu la doon xool xam nga bu yàgg ba bu fekkente ne élève dafa jàng ba rate classe école mm-hmm. dañuy ne nañ ko yóbbu mu jàngi métier kon métier dafa am beneen bët bu ñu ko doon xoolee nga nekk jigéen ñëw ci nekk ci biir góor soo amul parent yoo xam ne dañ la comprendre wala yow nga nekk nit ku am di te am gëm-gëm kon di nga passé à côté mu boo danga daan génn sol sa tenue boo xëyee di liggéey nit ñi dañ lay xool di la reetaan parce que xalaatuñu woon ni jigéen dina dem def mécanique ba nekk ci yenn année quatre-vingt-quinze ba léegi ba ubbi sa propre garage loolu lu metti la woon da nga doon romb nit ñi di la sous-estimer amoo permis mënuloo dawal ngay wàcc di dox fu sori boo amee complexe doo dem mais parce que dañ ko bëgg gëm ko. liñ daan waa kër naka lañ la doon gisee. waa suñu waa kër moom dañoo nekk ñoo xamante ni surtout samay parents ak parents ki yëpp ñoom ñoo ñu jàppale ñoo nekk suñu fans numéro un. parfois dama mos loolu dama taamu di ko nettali dañu demoon benn veyu tabaski. màkk yi ñu am jaar benn marché di am yu ñuy jënd mais fi ñu taxaw di jënd jigéen ñi ñu ngi ñuy reetaan. ñu mokkee ndax kii yi ngeen sol takk huile yooyu. takk huile ñuy rey naan xool leen ñi di taxaw di ñu reetaan kii ma xaw mer mer noonu tuuti kii ne ma. ñii après la ñuy comprendre kii te di jigéen yooyu tey ñooy ñëw di la wax ne la faatu dama war nga leen di réparer wala sax ñu ñëw ne faat du ma bëgg a dugg ci métier bi mais métier bu mett lu metti la su fekkee amuloo courage amuloo ngëm-ngëm doo dem mais loo nekk lu nekk gëm ko bëgg ko gëm sa bopp faaw suñu borom dina la fa dina la dina la si defal ndam parce que fii ñu toog tey ba moom ko di liggéey y a 10 ci ginnaaw dañ fi daan romb di ñibbi te duñu am paas c'est pas parce que jigéen lañ rek ñu foog ne affaire yi yomb na suñu côté man gëm naa ne am na jaar-jaar yu métti yu ñuy jaar yoo xam ne góor ñu sax jaaruñu fa waaw. Mm-hmm. alors Fatou Sylla mm-hmm. euh, yow seen waa kër comprendre woon nañ bul faale nga may nurool ah je sais pas si je me mais dafa mel ni yow yaa gën a résister ci ci regard extérieur yi. Euh, donc noo dundee début boobu mu mu nettali leen. waaw xam nga man nee naa nit il faut pas se voiler la face nit boo décidé ne lii la dangay ngay tout le temps dama doon wax am na ñoo xamante par exemple ñun mënoon nañ bi ñuy jàngi métier di sol yére yu set. ñëw ba garage. dindi ko non non non non non ñun dañ daan sol tenue moom la ñu xëyee suñu kër. romb nit ñi dugg ci carapit yi dugg ci clando yi des fois bu ñu amul paas ñu dox nit ñi duñu xool maintenant benn affaire nag lay bëgg a éclaircir mooy ni mm. c'est pas jigéen lañ dañoo jàng métier bu nooy mm. ñun dañ doon par exemple je me rappelle am na un jour man ak sama sœur mës nañu euh, décarté Descartes ci suuf moteur lay nekk. Mhm. def nañ ko pendant cinq fois. Euh, yoonoon kii di tëdd ci suuf. def nañ ko cinq fois li ñu defar baaxul ñu koy defaraat. Mhm. boîte aussi dañ ko doon wàccee donc dañu jàng métier comme ni ko góor ñi di jàngee. xëyul rek mu mu ñu ne ay faatu faatu dañ ko jàng di ko ñafe donc nekk foo xamante ne suñu patron bi ñu amoon yàlla ko suñu borom yërëm. Mhm. dala doon wax ne la jigéen nga dangay ngay jàng métier mooy waroo dox di di daagu. non da ngay dox di tëb. après daf ñu déformé parce dangay dox léegi di bondé parce que bu la mësaan fekk ngay dox di dox ndànk da lay bëmax casquette boo koy sol danaan la casquette sax doo ko sol laa fa ngay sol donc loolu lépp li mu ci jublu woon mooy ni ñiy ñëw di indi seen oto yi ñuy bañ a def différence entre entre jigéen ak góor te mu jàppale ñu nag suñu patron boobu dañ koy ñaanal yàlla mm. ndax dafa joué bu baax a baax si suñu si suñu palmarès tax na xëy na éduqué nañ ñu nag waaye nit yàgg nañ ko éduquer mu génn mm-hmm. daal di doon neneen mais moom doon na koo xam ne musuñu saaga musuñu dóor mais amoon na baat boo xamante ne daf ko koy jox chaque jour mm-hmm. mooy ni da ngeen war a am jom ñaari loxo mooy takk euh, sër ñaari loxo mooy takk loolu bañ koy dégg ci moom boobu kumbagal wayewu ko donc ñu doxee noonu. mosoo am complexe benn yoon ci tënn bi romb jigéen ñi ñu lay ree di la xool benn dafa dem ba topp ñu. tey jii boo ma nee dama lay invité émission li ma lay njëkk a laaj. lan la ñuy sol soo mënee tenue ma firi soo nee foog nga solo yooyu affaire bi nag. ma koy war a natt muy compliqué. donc tenue bi dafa dem ba dafa dafa bokk ci ñun au fait dafa bokk ci ñun te ñu fier ci lool nag. mu doon loo xamante ne tey jii mën naa ne li may wax Fatou man bu ma demoon ba am 50 ans. damay ko ne di sol tenue bi moom duma ko mës a bàyyi incha allah mhm. seen waa bi nga décidé ne yow da ngay dem nekk ci oto yeeg yooyu def mécanique comme comme góor yi mhm. euh, naka lañ ko gisee waaw xam naa ne nag lu ci mel ni suñu waajur yi peut-être kër début bi amoon nañ ci yërmande mhm. ndax euh, waaw ñeewantal mais bi ñu demee ba gis ne lii dañ ko bëgg dañu ci encouragé maa ngi maa ngi rappelé wu suma yaay yàlla na ko yàlla yërëm te yeexee ñu euh, bu mësaan romb conteneur conteneur yi wàccee pièce su ma wàccee daf ma naan faatu fële di gis naa mu wàccee conteneur doo fa dem jéem xool kon xam nga kooku mi ngi lay encouragé ku ci mel suma pap moom it i dem daf ñuy encouragé di ñu wax effectivement góor góorlu leen da ngay liir ci bëtam ne kii li muy def daf ko ne je me rappelle bi ma njëkkee ànd ak moom voyage dawal ñu dawal ba seen village moom bi mu ñëwee ba yegg si xam naa daal fier na ci doomam. waaw xam naa daal kontaan na ci doomam. donc ñu leen ciy sant aussi parce que buñ ñu ci découragé woon. tey fii ñu yegg si duñ fi yegg si. Mhm. alors Fatou euh, Camara ma ñëwaat ci yow euh, kañ ngeen décidé ne jot na nag ngeen xàll seen yoon. waaw mooy bi nga xamante ni li may wax Fatou rek ñun fi ñu nekkoon nekk fa ak ay góor. à chaque fois dañ doon wax jigéen boo xam ne jigéen buy def mécanique du dem fenn lu mu yàgg yàgg da ngeen di am jëkkër sëy wala ngeen bàyyi waaw loolu la ñu daan tooñee chaque fois mais chaque fois maa faat dañ doon toog di julli man bu ma musaan julli damay ñaan yàlla nañu yàlla may ba ñu créer suñu propre garage léegi nag si lañ en juin 2005 fekk paa bi defal nañu certificat de travail ci lañ ne nag ñun jot na nag léegi parfois da nga daan dépendre nit ba pare xam ne lii doone mokkal naa ko ba mu jeex parce que mécanique chaque jour nga jàng chaque jour marque oto bu bees génn boo xam ne mosuloo ko laal kon nga xam ne yow dangay ngay génn dem jël risque risque pour jël jéem a créer sa propre garage en juin 2005 man ak sama sœur ñu daal di commencé nag créer suñu garage bopp daal di koy ubbi jël suñu décision ne dañuy ubbi suñu garage bopp mais yombul woon début bu méttee métti fu métti la ñu jaar foofu sax jaar nañ garage yu ñu nekkoon jaar na métti na parce que jigéen bu nekk ci biir góor à chaque fois ñu ngay gis yu métti yoo xamante ni dal na la boo demee nag ba wéy sa bopp xam ni fii yow yaa fi diriger yaa fi sës lépp yow ak yéen ñaar kese la ñaari jigéen mais nga xam nga góor li may wax faa sama sœur jumelle góor mën na liggéey tey benn liggéey def ci erreur mën nañ ko ko pardonner mais bu fekkee jigéen la nga bëgg a relever défi mooy bëggoo ñu jigéen dafa gaaw a rus. bëggul ku ko ku ko ku ko dominer. Mm-hmm. surtout nga taxaw da ngay bëgg toujours nekk ci kanam. Mm-hmm. yombul woon nag mais jéem nañu ñu suñu kemtalaay kàttan ba taxawal ko juin deux 2005 daal si la ñu créé suñu propre garage maak Fatou Sylla Fatou Sylla juin cinq boobu lool ñu ci mën a wax euh, de plus que que li ñu fàtt wax. bon juin 2005 moom pour wax la ci benn anecdote pour amoon déjà emplacement bu ñu ubbee garage c'était pas facile dañu doon euh, am suñu clients yi ñu am di leen liggéeyal bon main d'œuvre ñu doon am ñu ci euh, taxale. Euh, suñu benn client bu yoroon kenkaayir yi lebal ñu ay zinc ñu taxawal et mais malheureusement fu ñu demoon amu leen sax lu ngeen defee clôture du tout du tout du tout mais malheureusement bi ñu ko defee fi ñu joxoon bien vrai waxoon nañ ne lieu la boo xam ne lépp looy def day précaire et révocable c'est-à-dire doo fa def lu dur mhm. ñu wut ay zinc clôturer def ko ay bant yi ñu dem vide am benn démarreur bu ñu doon jënd pour monter ko pour mën ci am men main euh, euh, d'œuvre boo xam ne moom ngay fay journalier yi à notre grande surprise euh, ñuy ñuy ñëw ndekete gars yi jaar nañ fa ba daaneel ko bon gars yi waa ñi nga xamante ne ñooy ñooy waa ko je pense bien ñu daaneel affaire bi ma ñëw ma ne Fatou kaay ñu commencé guñ sax mu demee ni xam nga ni ñuy def dañuy jéem a bàyyi bu ñu bàyyee dinañ kon ne liggéey bi de mais ñu jéem a xool ni ñu rapister voyager dem extérieur yeggale foofu bu ko defee dinañ gën a suñu li suñu métier dina gën a dem bon ñu daal di kii daal di nekkaat ci rek mu daal di may encouragé waat bu ñu xëyee di utiwaat beneen place sama xel dama naan yàlla bu ñu am parce que ah buggu si parce que loolu daf la découragé woon découragé mais ñu dem ñu dem dem ba am nag ci ci miiru armel yi ñu dem waa mairie Yoff jox ñu fa mu doon début bu metti ñu nuyoo ñu ay euh, genre des fois dañuy teg démonter je me rappelle mës nañ démonter benn euh, boîte Vito doon ko modifier boîte bi di jar quatre cent cinquante mille gars yi ñëw sàcc ko. Hmm? ah si ñëw sàcc ko nga war a yow xoolal ngay débuté yoroo dara nga war a fay boîte buy jar quatre cent cinquante mille. main d'œuvre bañ la ca fayoon sax yow matul sax cent mille. mais yàlla suñu borom moom day suturaal rek jaam bi. Hmm. dafay suturaal jaam bi ñu ko waxee borom oto bi mu ne ñu yéen xam naa ne amu leen mauvaise foi xam naa ne effectivement lii lu ñu jël la après ñu daal di gérer ba daal di koy defaraat ñu dem ba ci biir des fois nga ñëw liggéey nañ fa ba deux heures du matin parce que défi bi ñu doon relever la au fait da ngay gis ku ñëw xool laajte paanam feneen. Mhm. ba ñu leer ko par exemple ñu ne ko yow sa moteur bi dafa am problème nga ñëw nañu sama oto bi lu ci nekk di déglu ba xam pour comparer. Mhm. est-ce que la wax. ak ñun lañ lay wax benn la. da ngay jàpp ne li ngeen di ay jigéen moo tax. évidemment évidemment jigéen parce que euh, moment boobu gisuma woon jigéen bu bu bu comme ñun niñ ko defee. ñëw jéngu. dugg ci mm-hmm. champ góor ñi def comme ni ñuy def. Mm-hmm. entre say zeng di teg di dóor comme góor ñi donc boobu gisuma ko woon. mais yàlla day def rek daf ñuy dolli sudura a chaque fois bu loolu amee bu ñu ñëwee bu ñu leen waxee panne bi day nekk même. Mm-hmm. di nga ci tase ba nga kii ko parce que man dama doon testé. après jox la liggéey bi am na ñoo xam ne nag duñ la wax dara. mais da ngay sentir ne boo leen waxee paan bi am na benn arrêt bu ñuy def. Hmm. arrêt wu wax ñu wax la sa paan ak arrêt wu dama doon kii du benn. mais suñ borom di ci def sutura ñu ciy def noonu te mécanique bi fit moo ciy dem des fois nga tiim oto boo xam ne mosoo ko tijji mais comme nee nañu moteur benn fonctionnement la <laughs> te oto bu dee 80 euh, éléments multiplié ba ak Mercedes ba yëpp 80 éléments lay am. jàng bi ngay indi expérience bi takk sa fit xam ne suñu borom mën na la ci suturaal. mos mm-hmm. ngeen liggéey liggéey bu rate ngeen toog mu def leen gàcce wala kersa genre. ah waaw loolu mënul ñàkk mais <laughs> mooy li ma la wax rek euh, mécanique métier la woo xam ne ñun xam nga nuñ koy plaignant <laughs> góor ñi dañuy wax loolu tey da nga leen di woo téléphone sax di la laaj pièce ñu ne la faat tey dama am plaignant mécanicien boo gis muy toog di dem am na plaignant parfois nga am oto boo xam ni dalay sonal la sonal la sonal ba xaalis ba sax yow non non doo doo <laughs> xam nee nag à chaque fois li may wax rek xam nga ñun li ñu nekkee ñu xëy na yàlla may na ñu am ci yenn expérience am na koo xam ni mën na la papa ci liggéey bi mën na la expérience man damay woote gis nga ko dul laajte euh, bul rëy parce que tubaab yi defar seen oto sax boo demee foofu danga leen di fekk ñu am problème waxuma la ak fii parfois nga am plaignant boo xam ne dangay ngay wokk le supérieur moom fekk jaaroon na fa comme ñun aussi dina am ñu am plaignant laaj ñu fekk jaaroon nañ ci boo rëyee rek doo dem métier la boo xam ni boo boo rëyee wala nga naagu chaque fois xale bu ndaw sax mun na la ci génnee hmm. lu metti la métier bu metti la mais bu boo bëggee dara xam nga nit bu bëggee dara parfois di nga gis nit di liggéey dara nga li metti na de fekk yow lay metti mais boo ko bëggee ba tiim ko boo ko ñi ñëw lay yërëm mais yow doo doo ko doo ko yëg daal mais yombul de yombul moom alors euh, bu ngeen amee jafe-jafe yooyu nan ngeen ko dundee da ngeen jàpp ne ay jigéen ngeen wala da ngeen ne liggéey bi la euh, voilà comme comme waxtaan bi pour ay jigéen la pour mhm. un peu ñu ñu ñu mun a génne loolu pour naan ndax jigéen laa moo tax affaire bi metti yàlla xam na ne du ma wax sax ne man man damay fàtte xëy na nit ñi moo ñoo may xoolee bëtum ñoo ñuy xoolee laa wax dañu xool sax naan ñi ay jigéen lañ mais man pour man lu naturel la liggéey la boo xam ni comme keneen li muy liggéey comme keneen du ma mus a xalaat ne nekk ci benn affaire ne jigéen laa moo tax wala mooy liggéey benn affaire ne dañ ma war a jàppale parce que jigéen laa du ma bugg dunduma loolu dunduma ko sama sœur jumelle dund loolu nekkul ne li ñu nekk jigéen moo tax mi day metti sax si góor ñi mettit la boo xam ne ñëpp koy dund képp koy ouvrier képp kuy ubbee te ngeen aussi alors euh, yoof ba ba fii faatu lan moo xew si diggante bi. waaw yoof ba fii euh, xam nga ñun euh, chaque 8 mars journée internationale de la femme ñu ci remercier bu baax nag presse sénégalaise non parce que à chaque fois suñu waxee 8 mars rek ñoom dañuy ñëw vers les Fatou mm. donc bu ba wàll ci sax presse étrangère léegi nag ñu doon def à chaque fois ñuy defal ay reportage ba euh, à l'époque euh, le président Abdoulaye Wade donc gis reportage yooyu peut-être ak ay conseillers ak ak ba mu recevoir ñu au bi mu ñu recevoir rek fii la ñu octroyé fii la ñuy jox terrain bi ñu jege yoof daal di ñëw fii mais n'empêche euh, li may wax tout le temps rek c'est pas le président daf ñu jox daf ñu jox daf ñu jox outil de travail outil de travail mm-hmm. outil la boo xamante ne doo fi ñëw rek toog di saaf gerte mm-hmm. donc da nga fi war a ñëw gën a relever défi parce que moom mi la ko jox sax euh, warul euh, regretter jox bi. donc daf la ko bu daf la ko war jox daf la ko jox nga war a gën a redoubler d'effort gën a dëkkal sa bopp gën a taxaw. wane ne kii li nga liggéey wala li nga def mu am différence par exemple mécanique dañ ko réservé woon góor yow nga def ko jigéen mu xool loolu daan nii ñii nañ lii donc de Yoff à à à deux voies Liberté 6 donc loolu moo fi xew ñu nekk fi aussi di continuer rek ci ci allure bi am na ñu bëri ñuy wax ne lu tax ngeen kon continuer mécanique bi mënoon ngeen ko bàyyi non non ku fàtte lu la fal lu la fal lu la euh, dafay gaaw donc il faut ñu gën a persévérer gën ci nekk. Mhm. alors Fatou mi ngi wax sànq ne yaa ko encouragé ndax ba ñuy dajee fële ngeen ne woon ca euh, fi veden bi waroon aw. Mhm. découragé woon na euh, foofa ba yoof ba fii lan moo la gëmloo ne da ngeen war a continuer. waaw li tax ma gëm loolu damay dégg mag ñi di wax laan naan euh, yàlla bu la narta liggéeyloo du la fay bu la narta fay du la liggéeyloo ma xam ni dara yombul àdduna dara yombul xëy na yàlla mi la teg loolu nattu bu la yàlla teg rek xam na ni yow mun nga ko surmonter moo tax mu teg la ko su fekkee loolu moo tax yàlla booleñ su fekkee moom su découragé ma découragé du dem man daway découragé moom mu encouragé ma moom tamit mu découragé man ma encouragé ko mais segam fi ñu nekkoon di daan suñu dool di fa rente di ko ñafe suñu yoree suñu yëfu bopp yàlla dinañu dimbali man loolu laa mës a gëm dama gëm ni ñun yàlla mën nañu chaque fois nag dafa metti woon dafa metti woon ba léegi sax bu ñooy may defal reportage rek wala interview nii mën naa ko waxte te du ma jooy mais à chaque fois bu ma wala may génnee suñu album yi nga xam ni démb la woon soo koy seetaan damay jékki-jékki rek sama rongo ñi di wat parce damay xalaat fu metti la ñu jaar c'est pas parce que jigéen lañ xëy na dafay toog sax duma koy bëgg a wax parce que am na suñuy ñees wala suñuy neveu yu nekk si suñu ginnaaw amoon nañ ay góor yoo xam ne dañu bokkoon garage am nañu koo xam ni dafa sëy xëy ci trois jours daf ñu woon nañu faat damay arrêté parce que fii man mënuma fi dund ndax la dafa metti pa bi ñu jàngal métier damay toog di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm def na su ñun force ak courage ak jom boo xam ne saa yoo yeewoo mu teg la tar-tar ak métit métit boo xam ni dangay toog ni kii lim ma jurul moo tax mu may def lii fekk ni du lool dafa bëgg a toj sa xol léegi nag moo ñu jox force bi nga xamante ni wax dëgg yàlla sant nañ ko regretté wuñ ci dara ndax lu ñu épreuve mu ñëw bu soobee yàlla ma gëm naa ne war nañ ko surmonter mais yoof ak léegi li fi xew wax dëgg yàlla sant nañ yàlla parce que comme ni ko sama sœur jumelle waxee rek di liggéey nekk ci réew ba njiitu réew mi génnee la ci sa jeunesse recevoir la jox la lu mel nii ñu toog fi fii tamit yàlla dimbali ñu ba trophée bee ngay gis Madrid ay nit ñu weex lañ xamuñu leen sax ñëw nañ fii def fi sondage dem Espagne wooluñu ba foofu ñu def ñu femme leadership jox ñu lii fii tamit am na euh, benn association gender jëjee nañu tamit prix bi ci 8 mars la woon kon tey toog nañ ba nga xamante ni ñun jigéen ñi dañuy jël exemple fii ak ak ba bitim réew tubaab yi sax xam nañ ne faatu-faatu yi existé na mhm. kon loolu ba dañ koo liggéey bu doon dafa metti nga daw rek kon doo egsi fii may sant yàlla bu baax ci loolu ci li ñu defal loolu démb ak tey ngeen di teewlu ci Rewmi FM mbokk yi ni ñu ko waxee weeru mars bi dañu ko jagleel jigéen ñi bëgg a wone ne am na ay jigéen yu jàmbaar euh, yoo xam ne xëy na bu ñu nettalee seen jaar-jaar dana dimbale ñeneen peut-être ñu ngi ci yoonu bàyyi wala ñu ngi ci tànk découragé ñu xam ne am na ñu jaar fi ñu jaar wala fi ko gën a metti euh, te tey yegsi nañu fi ñu yegsi euh, étape Yoff bi of the record yaa ngi ma ciy wax dafa mel ni foofu ci seen jaar-jaar moo moo gën a metti peut-être Fatou ci détails yi mais yow boo ñu si mënee may muy ay épreuve nga nga nga nga wax ko jigéen ñi nga xam ne comme ni ma ko waxee léegi xëy na euh, domaine bu mun a nekk ah, ñu ngi ci boo bord du découragement wala ne bon dañuy bàyyi parce que lii c'est trop dur euh, wala ñi nga xam ne peut-être ñi ngi bëgg a dugg ragal ñu xam ne c'est possible ndax tey macha allah ku ñëw gis leen daf leen di ñee day bëgg a mel ni yéen mais nag am ngeen yoon boo xam ne moom ngeen jaar te wax dëgg yàlla ku bëgg a yegg si fii aussi foog nga jaar. waaw mooy comme ni la ko Fatou expliquer rek avant ñuy ñëw yoof ñu ngi ñu jox tey jii fi tali VDN bi jaaroon foofu la ñu joxoon terrain te nekkoon foo xam ne moomuñu ko waa mairie mooñu ko xëy na dañu bëggoon jàppale pour ñu liggéey ñu dem lépp ay zinc yoo xam ne dañ ko lebal ñu xaalis bi ñu jotoon a am ñu ñu fournir ko foofu xëy suba dem dañ daan def suñu xëyee bu ñu amee benn oto dem liggéey suñ ci ko dara fay journalier yi ñu doon liggéey ñu dem am benn oto bu ñu demoon liggéey retourné ñëw fekk ñu yëkkati ñu daaneel ko suñu ginnaaw ñun ñu ngi ñëw di di di dawal oto bi di ñëw seen ni daaneel nañ foofu. ñu dem di euh, commandant bi nañu effectivement suñu sañoon duñu leen yëkkati fii mais fii tali VDN bi moo fiy jaar tey ñun dañ fay jaar ak oto di dawal. Mm. démb amoon nañ suñu économie def ko fa ñu wat daaneel ko ci suuf. bi ñu ñëwee pour yëkkati zinc yi di ko transporter ko dénkaane ko suñu benn cliente bu dëkkoon foofu yoruñu sax bi ñu laajee charrette bi ne ko dañu yóbbu lii ci euh, VDN bi fii ci Ouest Foire bi mu fayeeku ñu 8000 francs xoolal temps boobu 8000 francs amuñu ko man ak Fatou ñoo doon jàppoo zinc yi di ko jàppoo di dox di ko yóbbu lu entouré loolu fépp ak ay bant ba ci ba loolu lépp jeex mun naa ne commencé nañ ko peut ay 16h ba ay 20h wala 19h ñu soog a. parce que ñun ñaar ñun ñaar kese nit ñi dañu taxaw di ñu seetaan mais moom mu jékki yéegi ma faatu jaru ko ma ne ko man gëm naa ni jar na ko yàlla mi ñuy def loo lii xam na ni attan nañ ko te yàlla natt bu la teg boo gëmee da ngay dem man dama mës a gëm ne yàlla dinañu jàppale génne ñu sa situation bi. moo tax mooy wax ne nit ki lu mu metti metti gëmal sa bopp lu mu metti metti bul jaay sa ngor bul jaay sa dignité gëm ko rek te xam ne yàlla du doomu aadama bu mu sàkk teg la nattu xam na ni attan nga ko loo attanul suñu borom du la ko teg waaw yoof nag yoof nu moom comme li may wax rek yombul woon yombul woon parce que jigéen bu ñëw jël supportu armeer yi ñun miiru armée yi ci boppam la ñu ñëwoon jël ay zinc clôturer ko maanaam boo taxawee suñu biir garage da ngay séen kuy ñuy denc néew yi ñun dañ daan taxaw ñaanal néew bu ñu denc bu pare doog a continuer suñu liggéey amuloo droit yëkkati mur bi parce que muru armeel da nga daan am client bu la dégg sax ñëw bu ñëwee seen miir bi rek découragé parce que danaa la fii faat fii ñemewuma fi mm-hmm. man ñemewuma woon armeel mais foofu moo tax ma ñeme armeel ñu xëy see ñaanal ne continuer liggéey su musaana taw man damay tiit bu guddee bu ngelawee comme temps yi ni mu commencé ngelaw du ma nelaw damay tudd yàlla ba yenn heure ndax damay xam ne suñu xëyee dinañ fekk zinc yëpp daanu ñu war a xool lu ko yëkkatiwaat mu taxaw ak yu métti yoo xamante ni système bu ma ko doon nettali fii ba suba du jeex chaque fois nga gis ay méttit ak tartar yoo xam ne xam nga jigéen dèjà ñemewul nga ñëw di liggéey liggéey nañ fa ba 2 heures du matin am na benn jour xam ne dañ fa liggéey ba veille 31 décembre du ma ko fàtte daal mais feetu réveil yooyu la woon euh, suñu ki ñu la jàkkaarloo kër ñu bu dégloo lii dina xam ne li may wax dëgg la këram la jóg 2 heures du matin ñëw fekk ñu maak faatu bi ak suñu booy mënuma dem leen ñibbi te suba bu leen liggéey faatu lii lan la yéen mbaali jàmm la. jigéen la am góor góor la dafa jaaxle ci ñun moo tax bi mu toogee gis ne président recevoir nag bi mu ñëwee fii daf ne ma yéen lu raw lii sax di ngeen ko am xëy na ñi leen xam tey lay bett waaye man mi leen xam démb xam naa ne lu bëri dese na leen pour ngeen ndax liggéey ngeen ko nekkul woon lu yomb vraiment. Fatou tey boo toogee di xool euh, li ngeen réalisé lan nga yëg. sant yàlla bu baax <coughs> ma ne ko damay sant yàlla bu baax di xam ne seul le travail paye. di xam ne adduna ñafe rek moo fi moo fi nekk di xam ne aussi loo commencé mu naqari xamal ne comme ni ko sœur jumelle waxee mën na neex mm-hmm. euh, des fois boo commencé mu neex peut-être que contraire bi lay doon mm-hmm. di xam ne aussi euh, nit ki lépp looy def rek di ñafe surtout di ñafe ñafe au ñafe laa wax au vrai ah. sens du mot munoo am lu dul résultat mm-hmm. bien vrai que nag am na lu bëri lu ñu dese parce que suñu objectif suñu gis-gis suñu bët sori na foo xamante ne tey bëgg nañ pourquoi pas région yi nekk Sénégal yépp ñu am fa benn garage boo xamante ne faat faatu mm-hmm. bu ko defee bi nekk Dakar nekk annexe mm-hmm. tu vois donc nit du yàccaaral mm-hmm. c'est pas ay deux cinq ak léegi ay année la mais pour ñun bu fekkonte ne tey cent pour cent la benn mën na am 20 pour cent lañ def desel nañu lu bëri bëri lu ñu war a def bien nag ñi ngi ci ba tey yéen a jéem a xëcc ay jigéen ci métier bi waaw ñu ngi jéem a xëcc ay mais foofu nag dama ciy def taxaw seetlu ndaxte comme ni ma koy waxee ñun dañu def théorie bi à l'école mm-hmm. def ko pendant trois ans <laughs> malheureusement ñun bi ñu suñ troisième année mm-hmm. di def stage stage moo ñu yóbbu woon ci garage ba ñu def fa vingt ans après vingt ans après je veux que ni yéggalewuñ sax suñu formation mm-hmm. ndaxte bi ñu demee dem di seere ah. guu bi dugg ñu école tijji. ngeen far toog ñu far toog. Ah mooy suñu nii. ah si donc pour wax la mécanique. nit day am dem ba am ci BTS. Hmm. attention nit day dem ba sori ci. mais xam nga bu fekkee da nga xëy gis Fatou Fatou yi à la télé. Hmm. nga gis Fatou Fatou yi par exemple ñu leen jox prix depuis l'extérieur nga gis faatu Fatou président recevoir ko. Hmm. nga gis nga defee ni lu yomb la. c'est un long chemin te neexul donc lu tax jigéen ñi may revenir sa question bi. Euh, man à chaque fois boo ma wooyee surtout après 8 mars dañuy am ay candidat yu bari Fatou dama bëgg nga jël noo mën a d'accord jàng nga nga wax ma mën na la niveau même CM2 boo ci yemee mën nga dem def CAP boo yemee troisième mën nga def dem def BEP ainsi de suite mais da ngay sentir koo ko ci wax après pour ñoom da ngay ñëw rek dugg ci taa bi. Hmm. et ça ne se pas comme ça. dañuy tayal jàng bi. parce que dañ koy tayal parce que ñun ñii tey jii ku ci mënu woon lire. Hmm. suñ la indilee auto électronique mhm. dangay ngay tëjaat capot bi ne ko baal ma demal ndaxte je m'explique auto électronique yi pour liggéey ko nekkatul ay déglu bruit xoolal ma soupape bi mhm. no ça ne se passe plus comme ça da ngay dugal machine bi mhm. di ko cek te boo koy cek machine mi ngi link ak ordinateur bi ordinateur bi da nga koy manipuler boo dugalee mu génn la ay défo défaut yi da koy lire c'est des phrases phrases yooyu da nga koy décortiquer mu la naan lii lii la donc boo jàngul doo ko mën. ay phrase mécanique. bien sûr phrase par exemple dangay ñëw ñu ne la euh, P 114. mu nekk benn défaut. ñu ne la P 114 par exemple capteur bii ñu ne la bii capteur dafa am problème. Ah, mais soo mënta lire sax P 114 euh, nan ngay mënee après mën a mën a gis waan décortiquer donc mu revenir donc pour wax la jigéen bu ci bëgg a dugg bàyyi force foog nga def école théorie nga xam les xam fonctionnement yi xam lan mooy moteur xam lan mooy oto xam comment détecter une panne mais doo ñëw rek faatu dama bëgg a kii rek solo la blouse du dem kon da ngay ñëw taxaw di seetaan rek parce que li faatu def sax doo ko xam am na nag ñoo xamante ne bu ñu la waxee boo leen kii dañ lay wax ban école lañ koy defee nga wax leen école bi ak école bi ñu dem commencé ko yàlla nag moo xam ndax danañ ko yeggale yàlla moo xam ndax dañuy commencé dem ba ci biir leçon yi di leen miirloo ñu bàyyi yàlla moo xam. kon même jàng bi yombul. ah non parce que jàng bi PC ngay def ku ne xam ne ne mécanique affaire euh, affaire mathématique la <laughs> affaire mécanique lenn lu littéraire amu fa. Mm. comprendre nga lenn lu littéraire amu fa yaa ay mots mécanique la. nga war a xam fonctionnement moteur nga war a xam nga war a xam même jàng mécanique yombul waaw looloo tax pour le moment amaguñu ay jigéen ñi ngi ñi ngi xaar nag bu fekkee am na ñoo xamante ne dañoo def école de part ci ñu jaar ci ñun ci ñu wax leen ko suñu paree seen formation pour pourquoi pas ñu defal leen ay stage au euh, nga ñu dem ba ci biir yàllaa xam peut-être nga maintenir leen mais daal dama bëgg xamal sama mbokku jigéen yi mécanique kenn du ko jàngeeti ci taa. Hmm. taa bi c'est-à-dire jóge fee rek dugg ci garage. dugg ci garage non ça ne se passe plus comme ça. ça plus comme ça parce que machine mécanique léegi ay machine moo koy liggéey. Hmm. Hmm. alors jigéen ñi moom ñi ciy def mécanique bëriwul euh, la preuve euh, jigéen bu paanee sax day wut ndimbal euh, sur ce ñu wax ci formation très rapidement bi nga xam ne yéen a ko initié pour dimbale jigéen ñi cest à que même bu ngeen leen dugalul ci mécanique bi carrément yéen a leen di bëgg may benn autonomie ci ci seen auto ba bu ñu amee yenn jafe-jafe ñu mën ko régler lan moo leen xiir si si formation boobu waaw faatu comme li nga wax rek nee nga jigéen ñi bu ñu paanee bu ñu ci tali bi rek dañuy woo du taxaw léegi nag xëy na dañu defe ne jigéen ñi même góor ñi aussi tamit am na ci ñoo xam ne mënuñu sax di ah, seen bopp mm-hmm. mais jigéen ñi naqarewuñu xel te dañu prudente ci tali bi góor ñi choc yi ñuy def moo ëpp foofu bu rarement c'est rare que nga gis jigéen bu def choc boo xamante ni extra extraordinaire par par rapport ak góor ñi ci loolu nag la ñu def jàngat def taxaw seetlu daan ne ren moom kon 8 mars chaque fois ñu wane faatu yi main chose chaque année plus de combien d'années ci loolu ren ñu ne dañuy indi innové lu bees mooy jàppale jigéen ñi du une semaine boo xam ni formation gratuite lay doon wan leen signaux oto yi boo duggee sa oto boo defee contact xam boo defee contact démarré lépp loo xam ne lu normal ci oto bi dafa war a fay mm-hmm. léegi bu amee lu tàkk rek xamal ni am na anomalie léegi loolu lañ leen doon jàngal pour ñu xam ko wan leen aussi bu ñu crever nan la ñuy def ba décrever seen bopp yàlla xam na ni jigéen ñi naqare wu ñu xel faraluma leen nag. ñu ngi ciy génn. non depuis semaine bi ñu ko commencé ba léegi ku ñëw di nga xam nooy décrever déjà dinañ la wax so sa maalu oto da nga war a am pneu secours da nga war a am cric clé à roue ak pano yooyu yëpp panneau signalisation ak boo crevé ni ngay def pour taxaw décrevé sa bopp boobu ba léegi ñu fi jot a jaar ñëpp xam nañ am nañ leçon bi réussir nañ ko. Mm. loolu moo doon suñu objectif bëgg nañ daal fi fii ak quelques euh, années. Mm-hmm. jigéen bu crevé te ci yoon bi mooy décrevé sa bopp ñii de li ñu def fii. Mm-hmm. ku ci crevé gëm naa ni di nga di nga sa bopp te loolu moo doon suñu objectif. Mm-hmm. di profité waale ci occasion bi di wax ne heureusement ba bi ñu jëlee projet bi. yóbbul ko madame le ministre wax dëgg yàlla ñun sax defe naa ne ñun moom li mu gëmee projet bi moom moo ñu ko gën a gëm taxaw na ci def na ci li ci war lépp ba pare def déplacement dérangement ànd ak équipe am yépp muy ministère de la femme ñëw taxaw si fi bu baax xool affaire yi encouragé ñu ci ñaanal ñu ci ne moom wax dëgg yàlla lii ñu def nii moom lañ ko defal kon boog sant yàlla bu baax a baax ci ci ci ci mbir moom ci projet boobu. alors Fatou Sylla bi dugg ci ménage jotee. ngeen di ay jigéen di def mécanique euh, naka la demee woon loolu yomb na. waaw waaw yombul de yombul de mais man comme euh, sama sœur jumelle bi. xam nga kii di jumelle moom dafa dafa dafa jumelle dafa compliqué de. jumelle moom jumelle la rek. jumelle moom bu jumelle bi amee bële am na. <laughs> waaw xam nga moom bu amee bële am na. Ah. yàlla nag dafa dogal ne sama jumelle bi moom moom a njëkk a dugg. moom dugg na di ko ñaanal suñ boroom euh, may ko ci lu kaayoo mm-hmm. di ko ñaanal suñ borom may ko ci njaboot yu barkeel. Mm-hmm. Euh, ba ma am ci ay turandoo. Mm-hmm. donc man moom duggaguma wante man maa ngi jël sama miroir la en quelque sorte. sama miroir la et maa ngi gis ne mi gisee géré. empêché ko ci. ci ci liggéeyam dara et que li ñuy ñaan rek femme battante yëpp yàlla na suñ borom boole leen ak góor yu compréhensif mm. parce que sans cela rek dafay xaw a compliqué mm. waaye nag comme li ma koy waxee rek gaynde moom bu ko bukki dabee ci doxin bala euh, nit ki moom mat gi day war a mat fépp mm. faut pas nga topp métier bi tam ba lor sa borom kër faut pas aussi sa borom kër aussi foog muy comprendre que ni lii bi mu lay bëgg dala ci fekk donc di coup pour man kaa ci am benn complication waru ci am lu ne rek jox ko wàllam Sénégal jëm kanam. d'accord alors est-ce que tamit nekkul liggéey bi moo xaw a góore tuuti <laughs> par rapport ak jigéen ñi nga xam ne duggaguñ ci est-ce que duñu yaakaar ne parce que des fois ngay ngay def yoo xam ne dañ naan la yow yow est nga am jëkkër parce que yaa ngi mel n'a rien à voir. foofu nag kaay nga li ñuy wax garçon manqué c'est le mot ah. faut pas que ñu fiir wax bi. dañuy wax jigéen yi def nii ay garçon manqué lañ. mais garçon manqué yi ak ñoo jonge. ah, ah si ah si. xam nga lu tax. Mm. duñ leen ko foofu duñ leen ko foog te nag problème bi mooy euh, nit ki nee nañ tànk mi ngi mel ni rek nit boo ko fréquenté wul doo ko xam. mën mm. nga ko nag def allusion nii diwli diwli mais li ma lay wax rek àdduna lu ci ne danga koy jox wàllam liggéey bu jotee da ngay dóor wane ne xam nga fii dóor la mais bu dee ci affaire famille dangay ngay duus. man par exemple ni may doxee biir garage bokkul ak biir kër. yaa ngi bondé def jean def casquette affaire yooyu noonu. biir garage ni ngay def mënut a nekk ak kër dégagement bi xajul ci biir kër sax. Hmm. garage la xaj <laughs> dégagement bi xajul ci biir kër gi. donc ni nga fel bool maa nga fel dara. ah si wala ubbi bunt bi waaw donc pour wax la ne rek nekk garson manqué taxul nga bañ a nekk li li jigéen di def nga koy def ñaar la c'est c'est en fait te yow mi personne bi yaay xool nag ku ci ne rek pàcc ba mu am rek nga jox ko ko mu mat sëkk. la part des choses. bien sûr bien sûr bien sûr jox la part des choses. Fatou euh, Camara pour yow euh, nekk ci say euh, est-ce que dugg bi déjà yomboon na jàppewuñ la woon garçon manqué comme ni ko sa turandoo waxee. non man pour man jàppewuñ ma <laughs> garçon manqué <laughs> waaw parce que xam nga tamit dina am tuuti comme li may wax sama sœur jumelle fi ngay dee nuroog jigéen ñi benn côté. Ah. loolu moom am na lu am la parce que ñun par exemple ñu mën a ànd ak jigéen yu bari parce que jikko yi ngay am góor ñi ngay fréquenté ba nga xam ni soo toogee seen ñoom seen détails yi ñuy wax yow xam nga loolu nekk sa bopp projet. Ah. lii nan laay def avancé sama garage lii lan. yaa ngi xalaat sa wala wala sama <laughs> plaignant mais ñoom suñu lay wax naan la ay. cheveux bee wala kii bee yow après da ngay naan ñii soo toogee du xeebuma leen nag na am na ci côté yëpp nag am na góor yoo xam ne ñeme nañ détail am na mm. da da ngay dem ba déformé wu yow da nga yor jikko góor man loolu suñu famille dañu ñu koy wax ñun ñaar ñii dañuy naan ñii wéruñu jikko góor la ñu yor mais loolu dalay arrangé parce que détail yu bari doo ci dugg nit pour man boo dee liggéey am nga war nga leneen lool waratal lu dul ay détail dina la dina la yóbbu ñu jàppee la loolu mais man boo ma fekkee sama biir kër wax dëgg yàlla su ma su ma fa tegul sama tenue doo kii. Hmm. est-ce que mécanicien la déedéet kooku moom xam naa ko li ma war a def sama kër moom bu ma fa yeggee jéeg dëkk laay doon. Hmm. waaw waaw loolu moom assuré naa ko. macha allah may sant yàlla foog nga am jëkkër boo xam ne tamit ku la comprendre la. su fekkente ne amuloo góor goo xam ni comprendre na la du dem. parce que di nga dem di liggéey sa client woo la góor ñi ngay liggéeyal lu bëri mais dama naan nit ki. ni la jàppee lu tax li tax nit di la teg fenn fi rek yow yaa koy liggéey su fekkente ne bi ngeen di xamante moom xala na ni xam na ni yow jigéen femme de principe nga ko am fulla ak fayda nga doxoo taxawaaloo nooy koo fokkat day xam ni kii liggéeykat la dala si jàppale au contraire nit su la bëggee ci li ngay def daf la koy bëggale mais bu fekkente ne dafa am neneen loo ko wanoon tamit ci bi mu lay xam boobu liggéeyagoo soo ko xëyee tàggu ne ko damay liggéey xelam lu nekk lay liggéey mais nag macha allah maa ngi sant yàlla ba yàlla boole maa koo xam ni comprendre na ma tamit bu ma comprendre woon day metti mooy ñaan yàlla musal ñu ci seytaane jàppale ñu ñu am njaboot yu barkeel waaw kon daal mécanique bi du feeñ benn yoon ca kër ga eh, soo eggee sama kër nag faatu da nga naan kii man ay affaire de yooyu daal yooyu noonu yooyu eh, <laughs> affaire de yu baax yooyu daal eh. xeetu baax baax yooyu yoo ci yooyu laa sama kër moom boo ko ubbee <laughs> eh. da nga naan kii est-ce que la ah. soo demee ci wàll bi bi foo koy bàyyi léegi bi garage bàyyi nag <laughs> ah, léegi moom garage waaw lay des su ma xëyee kër ga kii wa wóor na yàlla su ma duggee ci waañ bi tamit ba génn ah. léeg suñu waa kër ne ah ma ñam ba xam ceeb bi defoo si huile ak yooyu <laughs> yooyu lañ may tooñee mais macha allah maa ngi koy jéem a ak yooyu mais xam nga li ñuy def moo gën a metti togg wala gérer kër liggéey bi nga nekk ni moo gën a metti jigéen ñi xanaa xamoon ni nag muy yow muy man muy keneen uh-huh. jigéen bi nga xam ne day liggéey munta bokk koo xam ne liggéeyul parce que duñ la épargner dara te yow da ngay dem ne damay bañ ñu ne li may liggéey moo tax uh-huh. taluma sama kër di nga nekk di defar. Mhm. di nga set setal jigéen dafa am jom. voilà si ñun ñuy liggéey. jigéen ñuy liggéey seetul li ma la wax rek. Mhm. doo dugg seen kër gis fa benn manquement. di nga leen gis dinañ jéem a assuré fi ñu ne metti na nag. Mhm. xoolal yow miy jigéen biy liggéey yow yaa nekk ci sëñ bi. yaa nekk ci xale yi yaa nekk ci liggéeyukaay ba yaa nekk fépp yow kan mooy nekk ci yow. dafa metti mais comme ñun nag yàlla moo ñu séddee loolu nag ah jéem a sant yàlla rek. jéem a sant yàlla rek waa ci loolu. Fatou ñu ñëw ci yow lan nga dundu ci liggéey bi loo xam ne wóor na la ne li ngay jigéen moo tax peut-être ñu teg la ko walla nga jànkoonteel ko comme jafe-jafe. man nag euh, soxna si sama turandoo man nag dafa am lu ma gëm. Hmm. xam nga lu ma gëm dama gëm lu góor def rek mën naa koo def man ci loolu laay dox hmm. euh, dama koy def sax ci sama apprenti yi apprenti yu góor yi des fois benn paan am. Hmm. boo sentiree ne dem nañ ba bloqué nga ñëw débloqué leen débloqué leen après romb leen romb waxin la mhm. wan leen ne effectivement jigéen la mais n'empêche waaye nag li faatu wax sànq euh, mécanique ça s'apprend au jour le jour saay boo xëyee gis la ci jaaxal mhm. mm, alhamdulilah bi nga xamante ne am nañ esprit de partage mhm. comme li ñuy wax waaye nag li nga li ma lay wax ne pour man lu góor man mën naa ko loolu laa gëm man wax ma nag duma ci am blocage mais duma ci am blocage mukk ba taxaw naan la ma doon jigéen a tax au contraire su ma sentiree blocage rek la ma doon jigéen damay bëgg benn égalité bien vrai que c'est pas possible mm. pour nag ñi may déglu xam ne utuma benn comparé wu ma yemale ma tam mm-hmm. ndax du ñu benn nag àla mm-hmm. kulli mm-hmm. waaye nag comme dañoo nekk ci même champ bi rek pour man ñafe bi da ngay dóor rek amul ay jigéen laa parce que lii mm. man loolu laa gëm mosoo tamit nekk ci liggéey ba xam ne peut-être sa doole physiquement néew na fi ndax jigéen nga. <laughs> loolu moom sama sœur jumelle bi daf ma ciy reetaan ndeysaan 10 ans ci ginnaaw 15 ans ci ginnaaw bu ma mësaan téye amortisseur. Mm. man kese dama koy desserré. Mm. su ma mësaan di serré dama koy serré ba xam ne man ci jeunesse. mais léegi des fois ma xëcc benn affaire ah mag day dugg si nag. mag day dugg si parce que boo defee ci mbir ñaar fukki at ak lu teg mag foofu nag après damay am benn pincement bu sew rek waaw jom bi dem ma xam ne bu ma insister mën na waaw ma daal di xaw a taxaw waaye nag loolu li ñu ciy dimbali mm-hmm. matériaux yi nga xamante ne actuellement daf ñuy dimbali ah. ci liggéey bi parce que léegi waaw jamono dafa avancer donc benn moteur mën naa ko wàcce man kese à l'aide am na benn lu ñuy wax plan girafe soo ko amee mën nga wàcce moteur yow kese waaye nag j'avoue que la ma mënoon y a 15 ans yaa a différence waaye nag bopp baa ngi fi technique baa ngi fi boo fekkente ne force bi dafa des dóoral technique bi woo sa booy yu góor yi mhm. ñu daal di agir après ngay def naan di démarrer parce que ñun ñu daan ñun <laughs> moom. <laughs> jigéen moo am jom naturellement. yow Fatou mus nga ci liggéey bi nga sentir ne sa doole néew na physiquement parce que jigéen nga nga ne xëy na bu doon góor dina ko mën. Euh, comme li la sama sœur jumelle wax ñun dañu daan dugg ci suuf oto di liggéey fi ñu nekkoon nekk fa ak paa bi ma lay wax dafa nekk ba Cheikh Ndiarème ku nekk fii si Dakar xam nga ko ba Touba fu mu doon suñu ñun dañu daan liggéeyal autorité bu nekk ñëw na suñu garage boobu ñu ngi nekk Rue Dial Diop kon foofu da ngay ne ngay liggéey par force paa bi léegi damay toog di wax xale yi ne leen yéen ni ngeen di jàngee ci dafa neex parce que ñun du ñu mësaa a dégg paa bi Rue Dial Diop lañ nekkoon ci euh, Assane miiru Assane Diouf boobu gis nga poste Médina boo fa bu fa otoom teelloo nga dégg régime oto bi da nit ñi waa koñ bi ni ñuy xamee ni paa baa ngi ñëw ku nekk da ngay daw boo amul looy def <laughs> di nga dem dugal sa loxo huile sax takk ndax bu la ñëwee fekk la sa loxo takkul huile nga ne tey liggéey amul pes la lay wuyoo ne la naka la ouvrier di toog di wax ne aw ma liggéey moo tax foofu jigéen a góor amul ñun loolu ci lañ taamee sol manche longue parce que bëggul sax nga sol manche courte ñuy gis sa cër ne kii jigéen la wala lii léegi nag foofu da ngay liggéey amul toog da ngay tàmm tës tës tàmm tës tës desserre tour de boîte wàccee man mu naa di tour de boîte di changer arrêt d'huile moteur oto bi daanu sama kaw. waaw loolu ñi may déglu sama waa xam nañ li ma wax oto bi daanu sama kaw temps yooyu xale nga dangay am fugg di liggéey doo xal calculer góor ak jigéen mais comme li la sœur sama sœur jumelle wax xam nga góor ak jigéen bokkuñu. Mm-hmm. da ngay boo demee ba am 40 ans. doo ko teg koo xamante ne di ngeen dina nekk góor ngeen yem âge ah. mais doole bi du fa nekk léegi li nga doon mën doo ko mënati ndax liggéey bi metti na mm-hmm. bi nga li li nga doon def sa enfance day ñëw ci bi nga nekk commencé di jël âge léegi nag loolu moo lay xaw a bloqué mais du ma ko tuddee bloqué parce que bu oto bu fekkente ne bu ñëwee nga déglu rek xam paan bi fi mu nekk mm-hmm. du jar nga sonn valise électronique yi léegi jaratul sonn da ngay branché mu wax la mais boo ko toppee da ngay am paresse ah. parfois da nga koy teg liggéey ak sa xel loolu xëy na loolu dañuy wax doole bi mi ngi commencé wàññeeku ndax yaa ngi commencé di jël âge mais fierté la. parce que taxul ñu tayal tey bu ñu toogoon waxal suñu âge doo ko gëm. parce que am na ñoo xam boo leen waxee dañuy taxaw ne la am nga loolu tellement que bi nga nekkee xale danga nga fournir da doon liggéey léegi boo toogee di reposer. mais vous êtes toute jeune là gisoo fàttali jean bi. def casquette def jean def training mais soo waxee âge yi nga am xale yi parfois booy yi nga ñëw indi ma man la yow man naa la maman maman fan. su ma la waxee sama âge nga nii da ngay gis sama booy yi dañ may wax maman mère lañ may wooy di wooy faatu mère parce que dañu màggetuñu mais tamit duñu xale. waaw xam nañ leen waaw. le mot mère boobu dama leen di wax ku ma ci ne mère non j'aime pas trop le mot mère dañ lay màggetloo di. waaw la waxee mère dañ yow màggetoo tu es toute jeune. non non en tout cas. alors naka ngeen di manager góor ñi. des fois duñ leen xaw kii tuuti ndax ay jigéen ngeen genre. point bu am importance. man bu garde doon jaay dama koy jëndiwaat. Hmm? ah àdduna garde daf ci baax. Hmm. bu ma lay jël dama lay wax ne la bu liggéey jotee gaynde la hmm. d'ailleurs euh, suma mécanicien mbokk mécanicien yu bëri duñ jaar sama tur. gaynde rek. ah si gaynde su liggéey jotee gaynde lay doon bugguma erreur ci liggéey erreur nag du ñàkk. bugguma lu seere seerewul bugguma bugguma képp kuy liggéey ak man xam na ko lii man mooy sama jumelle mais bu ñu liggéeyul mën nañoo ut Cheira Musique teg toog fecc yow ah. donc deux facettes lay am su liggéey bi taxawee mm. damay beneen affaire la te ñoom sax <coughs> dañ koy dañ koy xam donc comme li ma la wax diriger ay góor c'est pas facile mm-hmm. mais garde bi ngay indi teg ba ñoom sax dinañ dañu duñu sentir ne est-ce que kii. jigéen la jigéen moo ma diriger. donc dañ xam ne jigéen ngay tout mais ci kàllaama ci jëfin comme li ma la wax. Mhm. defaa ñu bloqué nga débloqué leen. Mhm. des fois ci biir liggéey nga wan leen ne man la. Mhm. bu liggéey bi paasee après mën ngeen kaf mën ngeen fo mën ngeen rek mais ci liggéey bi daal dañuy doon gaynde parce que daf ci am solo. parce que diriger góor yombul. góor nañ ma baal dañu gaaw ci. bon ñi ma ko war a wax quoi dañ gaaw a siisu quoi. Mhm. non kii jigéen la di ma kii ak yooyu yooyu lañ lay wax. Mhm. te nekk jigéen terewul waaw waaw te yooyu man bu ma ko li may wax faat ma ne ko sama booy des fois ma gis booy ma ne ko boo xëy see sa tànk bi ngay njëkk a teg xam naa intention bi ngay indi tey. Mhm. am da leen di napp. Ah, non pas napp napp c'est trop dire je veux dire dama leen di bugg a wax neen neen rek. ñun gis nañ bu ne. suñ garage y avait plus de 40 góor gis nañ bu ne. donc nee naa boo tegee sa tànk tey li nga indi boo amee intention wu tey ma jox la moteur nga dóor mu daan damay xam tey boo amee intention bu ma day joxee moteur da ngay saboté damay xam léegi nag selon loo indi ma fekk la ci ça c'est faatu gaynde loo indi rek ma la ay jë ñu dem ci faatu gaynde yow nag faatu lan nga ak góor ñi ah man de maay segg moom maay xosiwaate <laughs> maay xosiwaate ah moom man maay wax na dëgg nag diriger góor yombu parce que dafa mel am benn orgueil bu nekk ci góor xëy na bu fekkoon comme seen moroomu góor la bu leen di wax defal li defal li duñ ko gisee noonu mais boo ko danga koy xool sa doomu ndaw sax boo ko yuuxoo mu jéem a riposter mais yaay xool noo leen di manager parce que xale yi amuñu expérience dañu gaaw a màgg mm. léegi da nga leen di jéem a xool boo nekkee ci ñoom da ngay nekk yaay yaay ngay nekk parfois sa doom jaar noo xam da nga koy jéem a indi mm. teg ko ci yoon jéem koo yedd jéem parce que soo leen bàyyee ñu dem benn xale boo defar moo gën nga bàyyi ko mu dem rate dañuy rate mais da jéem a comme li may wax rek soo jiitoo mm. da ngay tëddee njaaxaanaay jéem leen a éduqué jéem leen a xëcc seen bopp xëy na yow toll woon nga foo xamante ni sa paa bi la yoroon di la jàngal comme paa bi di nga toog naan kii dafa ma bañ mm. ndax li may teg nii dafa metti mais bi nga demee ba toog di nga xam ne kii jàng la la bëggaloon dina am xale yoo xam ne jaar nañ fi dem mais après danga leen di gis ñu fiy jaar di la nuyu di la remercier parce que boobu comprendre ñu woon mais après la ñuy comprendre. daal si seen biir moom dangeen ngeen di dëgëral. yii duñu bàyyi mu sedd nag fii moom garage moom loolu la ñu dañuy wax faat dañu compliqué xam nga Sénégal moom boo tegoo ci dëgg. duñ la dañ naan dëgg compliqué dañuy bëgg ay te loolu comme li ma la waxoon sànq suñu bi waxtaan bu fekkente ne góor liggéey na mu am erreur mën nañ ko comprendre ci kaw tali bi da nga koy gis. erreur bu am jigéen ñi lañ koy collé. Mm-hmm. xam nga gis nga ko sax ci oto. ci oto sax waaw xanaa jigéen la. gisoo da ngay seetlu li ma la wax à tey boo gisee ñuy ndaw góor ñi dafa am orgueil ñu baal ma nag ci wax ji. bu rëy nañu sax def débutant. ci oto yi. débutante la ñuy def ba pare nekk góor parce que bañ nañu sax ñu ne góoru débutant te loo gis fi àdduna am na débutant. xam nga seetlu li ma la wax du ñu nangoo nekk def débutant <laughs> débutant débutante rek la ñuy def. parce que <laughs> ñu ngi noon ah ñeme <laughs> saway waay la ñu nag mais xam nga rek du ñu comprendre xamuñu ne gis nga même classe jigéen ñi ñu baal ma ci wax ji dañu am jom jamono jii ñu toll jigéen ñi ngay gis à mais góor gi ah terewuma leen kiiwuma leen noonu sax mais daal loolu buñ ko naree bañ dinañ sonn parce que ku yàlla jiital. bul xool ni kii jigéen la da ngay xam ni kii compétence moo ko teg fii nga jéem a xool ah expérience bi mu am nga jéem cee ut pour yow ëllëg boo beroo mu yomb ci yow. mais ñun fii moom boo fi indee ne jigéen moo jiite duma duma dem tamit duñu mën a dem parce que mënuñu liggéey suñu liggéey ba egg fii di jéem a maslaak yooyu dara di ko yàq loolu moom duñ ko nangu. waaw ñu lay gërëm di leen gërëm bu baax. Mhm. des ak yow rek bàyyi la nga tàggoo très rapidement. waaw maa ngi lay sant bu baax faatu yow mii 8 mars bi ni nga ñëwee ci ñun tànn ñu def ñu say invité ñuy ñaan yàlla lépp loo xam ne waxtaanee nañ ko fii mu nekk njëriñ ci ci réew mi nekk njëriñ ci jeunesse bi surtout jigéen ñi di leen wax ñu góor góorgóorlu ñaari loxo mooy takk tubay ñaari loxo mooy takk sër. soo nee bu ma doon góor def lii boo doon góor tamit doo def dara waa ñu ma leen di wax ñu góor góorlu daal ndax jigéen mooy defar société jigéen yàlla fu sori la ko teg ndax bu jëlee doomu aadama dénk la ko nga xam ne ñun ndawuñu kon nag nit warul toog ne man jigéen laa dañ ma war a jàppale bu ñu lay jàppale dañ lay fekk si yoon bi mhm. nga xam ne lii yaa ko liggéey da fierté lay doon parce que gis nga àdduna yàggul te jigéen euh, carrière yàggul fi ngay déggee xale bi jànq bi maam dafa yaa dafa yàggul daal kon góor góorlu bu baax te xam ne ñoo yore sa société. kamara Fatou Camara Fatou Sylla ñu tàggoo ak euh, yow aussi euh, yéen kàddu ngay denk jigéen ñi ak ndaw ñi. Mm-hmm. dellu santaat santaat yàlla rek. di wax ne maa ngi wax jigéen ñi nañuy embarrassé métier technique yi dafa baax parce que boo ci demee góor ñi ñoo ci ëpp te ku ne xam na ne technique comme ni nga ko waxee am na force mais pas tellement. Mm. donc di leen wax ne luñ fi waxtaanee bu dee dafa am lu ci gaañ nit nañu jéggalu xam ne matadi doomu aadama la lu ci jub ñu xam ne suñu borom la di leen di ñaan très prochainement yow aussi di la gërëm ci euh, euh, li nga opportunité bi nga ñu may ñu wax ci suñu palmarès Euh, di la ci gërëm ci sant. jërëjëf man maa leen di gërëm bu baax sama tërandoo yi dellu di leen sargal di sargal jigéen ñëpp ñi nga xam ne aussi ñi ngi ci ay jafe-jafe ñu xam ne mën naa nekk mën nañ ci génn ndax fi ngeen jaar macha allah yombul peut-être dugg ñu si lépp lépp waaye wax ngeen fi loo xam ne ku ko dégg xam ne def ngeen yoon bu jafe te itam yal na leen yàlla yokk seen perspective yi ngeen am yëpp yàlla na sotti ba lu kawe seen njoxta Fatou Camara Fatou Silla Fatou Fatou Mercedes la ñu doon dalal ci démb ak tey gërëm leen bu baax yéen ñi doon déglu Diallo mi ne woon ci machine bi Fatou Thiam Ngom ne woon ci kaddu gi euh, dig leen daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm